Filip saar ñett kon nag samay mbokk bég leen ci borom bi duma sonn mukk ci di leen ko wax ndax seen mucc moo ci aju moytu leen xaj yi waaw moytu leen ñiy jëfe lu bon ñoom ñi seen xarafal weesuwul wàññi yaramu nit ndaxte nun noo xaraf tigi nun ñiy màggal yàlla ci xel mu sell mi di damu ci kirist yeesu te amunu jenn yaakaar ci matuk nit ba tey mënoon naa am yaakaar ci sama bopp su nit doon damu maa ciy raw xarafoon naa ci ayu bés ga bokk ci bànni Israyil ci giiru Benyamin di hébreu ci deret ak ci meen bu dee ci yoonu Musaa ngeen bëgg a wax ci tarixab pharisien laa bokkoon bu dee it ci mbirum farlu daan naa fitnaal mbooloom ñi gëm Kirist bu dee ci njub ci sàmm yoon awma benn gàkk waaye loolu lépp lu ma tegoon ay njariñ fa kanam yàlla dëddu naa ko ngir kirist rax ca dolli dëddu naa lépp ngir xéewali xam kirist yeesu sama boroom di xam-xam bu xóot ba xel mënu koo takk moo tax ñàkk naa sama lépp te def ko ni mbaliit ngir am cër ci kirist na yàlla fekk ci moom waxuma ci njub gu aju ci sàmm yoon waaye gu aju ci gëm kirist maanaam njub gu nu yàlla sol ci kaw ngëm moom lay ittewoo xam ak doole ji ànd ak ndekkiteem ma bokk ci ay coonoom ba fekk ko ci deeyam ngir mën a seddu ci ndekkiteem su ma ko mënee am waxuma ne jagoon naa ko ba noppi waxuma it ne aji mat waaye maa ngi daw ngir jot li tax kirist jël ma mbokk yi gëmuma ni jot naa ko ba noppi waaye lenn lii laay def fàtte li ma weesu jublu ci li féete kanam di daw yenn mujj ga ngir jot li ma yàlla taxawoo di cër bi ma yàlla wooyee te dencal ma ko ci asamaan ci darajey kirist yeesu nun ñi mat nag nanu xalaat loolu te su ngeen ci amee werante xol yàlla dina leen ko leeralal li am daal fa seen ngëm tolloo na fa seen jëf àgg kon nag mbokk yi topp leen ma te xool ñiy roy ci li nu tëral diirib sunu ngan ci yéen ndaxte jëfu ñu bari juyoo na ak dee gi kirist dee loolu wax naa leen ko ba tàyyi maa ngi koy waxaat léegi ak i jooy alku ñuy mujje ñoom ñiy jaami seen biir di wonoo lu ruslu tey wut yëfi àddina rekk waaye nun waa asamaan lanu te noo ngi xaar borom bi Yeesu Kirist jóge fa musal si nu noonu dina soppi sunu yaram wu toroxlu def ko ni yaramam wi ànd ak ndam dëppoo kàttanam gi ko mën a nootal mbindeef yépp